te ñu ngi leen di nuyu suñ mbokk journaliste yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci seen teewaay dafa mel ne mbir mi mënoon na ma sax ñàkk wax bi directeur exécutif waxee ba pare li mu wax ci français dana jafe man xëy na ma wax ko ci olof ngeen dégg ko tey ni ngeen ko déggee ci français lii am yëpp directeur exécutif wax na ko gannaaw bi nga xamee ne président de jël na ay ndogal ci xam jafe-jafe yi am ci fi jamono toll ak population bi coono yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci wàllu dund bi mu am yéene ne nañ ko wàññi muy loo xam ne lu ñu rafet loolu ndax ñu ñëpp la ko defal joxe ndigal itam ne nañ ko saytu ministre du commerce bi mu waxtaanee eh, toujours damay dégg mu ne waxtaan naa ak commerçant yi waaw wax na dëgg war na leer waxoon nañu ne bëgg naa wàññi denrées alimentaire yi maa ngi ci waxtaan ak sama ay collègues pour ñu bàyyi li nga xam ne mooy douane ci wàllu ceeb bi loolu wax na dëgg waxtaan na ci ak nun waaye naka lañ koy defee nag waxu ci ak nun foofu la yem dañoo génne conseil de ministres rek jël arrêté loolu nag jafe-jafe yi ci foofu la tàmbalee arrêté bi nga xam ne moom la jël li indi jafe-jafe bi tey dëgg-dëgg mooy bu ñu jëlee ci wàllu ceeb dafa wax ne commerçant importateur bi ko importe indi ko ci port bi daf koy jaaye deux cent soixante deux mille moom su ko jaayee deux cent soixante deux mille commerçant grossiste bi jaaye ko deux cent soixante quatre mille kon diggante deux cent soixante quatre mille cinq cent ak deux cent soixante deux mille xam ngeen ne deux mille cinq cent rek moo fi dox deux mille cinq cent te commerçant grossiste bi koy jëli ci port bi moom deux mille huit cent la ciy fay ci transport bi est-ce que loolu. ndax dana mën a nekk ndax du mën a nekk ndax loolu indiwul jafe-jafe deux cent soixante deux mille laa ko jënde man ci biir port bi fay deux mille huit cent pour yóbbu ko Tëngéej ñu wàcceel ma ko te ñu ne ma man liñ ma ci tegal ci entre deux cent soixante deux mille bi mooy deux mille cinq cent kon mel na ne man man mi jëndi ceeb bi yóbbu ko Tëngéej wàccee ko rek perte naa trois cent franc ci bi ma ko wàccee fi saas est-ce que loolu lan lay jur mooy commerçant bi am xel du dem jëndi su loolu amul lan mooy am ñu ne pénurie am na commerçant grossiste bi yore ceeb bi ci port bi ne man ne nangu na maa jaay waaye gisuma ko jënd fu mu doon mujj mooy ñu wax ne kon commerçant yi ñoo denc marchandise bi fekk denc amul dañu leen a def loolu loo xam ne mënuñu ko parce que jënd di jaay perte loolu néewaan bu ko commerçant defee kon loolu jafe-jafe la ci wàllu ceeb bi beneen jafe-jafe ci wàllu ceeb bi bi mu décidé ne dañuy wàññi douane fekk na dëkk bi am na stock bu fi nekk te xam ngeen ne ceeb dafa amul bénéfice bénéfice ceeb par tonne à l'importation sénéeriwul même 3000 francs la ton ñu xëy ne dañuy bàyyi droit wu douane yi ci ceeb te bis bi ñu koy bàyyi immédiatement dañ koy appliquer même ko am stock il faut nga jaay ko soo ko jaayee ñu dal sa kaw stock bi fi nekkoon seeni boroom ñi ko jëndoon ñoom. war ci perte vingt cinq francs par kilo soit vingt cinq millions par mille te fekkoon na fi di moins vingt cinq mille tonnes environ yu ñu dédouané loolu kenn waxu ci dara ñi moomoon stock boobu ñu ngi toog naka la ñuy def vingt cinq mille tonnes mille tonnes bu dee par vingt cinq millions ça fait combien ñi moomoon loolu naka la ñuy def est-ce que dañuy jaay perte tëj seeni boutique loolu jafe-jafe la kon de war nañ ko waxtaane waxtaane wuñ loolu ba am di solution wàllu ceeb bi loolu moo ci am kon donc dafa jare waxtaanee waat dafa jare waxtaane borom ceeb yi toog état toog ñëpp ko séq ñëpp toog ba ñu am solution bu claire loolu amagu ci kon il faut ñu waxtaanee waat ko ba am ci solution donte chef d'état am na volonté wu yombal ba dindi wàllu douane bi mais su ko dindi itam nag lii pour problème la beneen bi ci wàllu sukkar bi sukkar bi bu ñu xoolee ci la passé woon arrêté bi ministre bi mujj jël avant bi cinq cent quarante cinq mille la nga doon jënd sukkar bi compagnie sucrière cinq cent quarante cinq mille mu fixé woon ko détail six cent francs le kilo tey tey mu yokkal compagnie sucrière vingt cinq mille soit cinq cent soixante dix mille ba pare bàyyiwaat ko ci six cent francs cela veut di quoi donc vingt cinq mille bi mu bi mu yokkal compagnie sucrière du état moo ko def mais entre li commerçant grossiste bi doon am ak détaillant bi la jël jox compagnie sucrière la ci gën a garaaw nag mooy boo xoolee ci arrêté bi dafa ne sukkar bi compagnie sucrière yaa ko jaay cinq cent soixante dix mille euh, ki nga xam ne mooy commerçant grossiste bi moom ñu ngi koy jaay vingt huit mille sept cent cinquante def ci tegul transport transport bi ñu jëlee sukkar bi di saatool ba dakaar amu ci tey bu ma jëndee cinq cent soixante dix mille teg sama transport onze mille ak manutention loolu ñaata la ça ça fait cinq cent quatre vingt et un mille cinq cent quatre vingt et un mille lay jox vingt cent vingt neuf mille vingt neuf mille cinq cent francs par sac ñu ne grossiste bi nañ ko jaay vingt huit mille sept cent cinquante dem naa compagnie sucrière jëndi naa fa sukkër indi lu ma Dakar mu dikk ma vingt neuf mille cent état bi ma naa ko jaay vingt huit mille sept cent cinquante loolu au nom de quoi la ko bi di defee jafe-jafe la ci ni ñuy defee arrêté bi wàllu sukkër bi fa mu jafe-jafe trop ci côté boobu beneen bi des mu xam ne moo gën a lënt ñëpp gën a garaaw mooy wàllu diwlin bi huile de palme bi moom mënuñ wax ne problème la dañu wax ne romb na problème c'est plus que problème parce que dañu wax ne wàññi nañ douane bi indi ay forfait mais maa ngi leen leeral ne buñ mayee woon douane bi zéro franc zéro nga xam ne kenn fayul dara dañ ne la dama la jël dugal ci marché bi mënoo ko jaay prix bi ñu wax vingt mille mënut a nekk mënoo ko jaay zéro franc douane mënoo jaay vingt mille léegi nag ñu ne dañu wàññi douane bi xëy na lu fa nekkoon six millions à combien à quatre millions léegi nag. dama ne 4 millions yi même bu ñu la xamayee mënul kii bi parce que tey li ne ci marché bi diwlin boobu li mu dikk ëpp na 22000 comme li mu dikk ëpp na 22000 ci arrêté bi ñu ne yow na ko jaay 20000 est ce que loolu aussi man na ne mën mu nekk loolu ñun ñëpp noo bokk réew mi noo bokk di fi dund ay jafe-jafe la yi nga xam ne dafa am waxtaan bu xool bu ci jara waxtaanee état yërëm na population bi trop waaye dañu jàpp ne tey. te lii ma leen di wax mooy par rapport li fi nekk mais bu jëlee prix diwlin tey tey tey tey fi ma doon di wax ak yéen quarante deux dollars quarante deux dollars lay jar jël leen seen machine ngeen calculer quarante deux dollars Malaisie wala Indonésie mu door a ñëw Dakar xool leen quarante deux dollars lan lay correspondre c'est plus que sérieux fu ñu toll la situation yi grave lu ko gën a amplifier mooy xam ngeen guerre bi ñu am Ukraine génnam Ukraine Ukraine ñoo ñi nga xam ne ñoo doon jaay diwlin bi nga xam ne mooy tour tournesol ñooy leader mondial ñoom ak union soviétique ci loolu léegi ñoom dara moom du fa génn bi loolu manqué Indonésie mañ daan jëlee ak fële ñoom it am nañ ay problème ku ci nekk yaa ni daw ne na fan laay jaar ba mucc fu may jaar ba soowee sama xeet foofu lañ toll donc la le problème est très grave c'est plus que lu ne mën na am donc dafa jaadu ñu jàpp jàkkaarloo population bi wax leen li nga xam ne moo am mooy jafe-jafe am na au niveau international parce que dañoo dépendre trop au niveau international. ban solution nag solution bi ñu jàpp ne ñun mën na am mooy état il faut mu jëlaat ay techniciens mu toog ak ñi nga xam ne ñooy waa UNACOIS ñi nga xam ne ñooy importateurs yi ñi nga xam ne ñooy ay services am ensemble ñu jàkkaarloo waxtaanee dëgg bañ a raayalante ginnaaw génnee les réalités du prix. ñu xool li mën a nekk ñu génneel population bi yërëm nañ leen loolu waaye lii rek moo mën a nekk loolu ku la ci far far la ci dëgg ku la ci wan gannaaw wan la gannaaw ci dëgg ndax du mën a dem fenn fu mën a dem foo dem loolu nga fekk donc toll nañ situation bu grave dafa jaar woon nag lii ina quoi woo leen wax ko mënoon na keroog bi nga xamee ne am bi ñu jëlee décision bii ci conseil de ministre au même jour woo nañ président ne ko dañu lii ñu jël dañu bëgg ngeen appliquer ko mais président itam président wu UNACOIS la du président wu dama tëb rek ne maay jiitu UNACOIS déedéet dafa am ay membres yu actif yuy liggéey yoo xam ne balay wax ci seen tur il faut mu xam li xew lan la bi mu dikkee boo xam li xew lan la ne naa woote conférence de presse pour wax ci seen tur waxum wootuma conférence de presse parce que dama contre lii wala dama ànd ak waaye dama am devoir de dire la vérité et loolu defe naa ne. mooy lu tax ñuy jiital jiital ko ci UNACOIS parce que su waxee woon neneen itam loolu tey day ñu bari daan nañ suñu kaw lu tax demul leen télé lu tax leen lu tax defu leen ni fekk déedéet bala ngay dem ci télé wala may woo bi di ko wax ay information dama loo xam ne lu leer la lu jëlee mu ne Moustapha loolu ma ko jox ma ne ko fii laa ko teg loolu daal pour le président la ñu amoon ci lu ñu constaté